alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala mbokki jullit yi noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di leen dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla ak topp ay ndigalam ay ay tereem bu loolu wéyee mbokki jullit yi kenn ku ne ci nun bu xalaatoon ci dunduk doomu aadama dana gis ne lu gàtt la xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koy xamal lu amagut wax na ne dunduk xeetam wi ci diggante juróom benn fukki at ba ci juróom ñaar fukki at la mu ne ñi gëna a néew mooy ñiy weesu loolu ñi gën a néew mooy ñiy weesu juróom-ñaar fukki at te kenn ku nekk xam na ne juróom-benn fukki at bu ko nit ki seet loolu néew la donte nag nit ki bu nekkee ci diggu wér gi yaramam ak ndawam ndaw gi da koy wor seytaane ki naxam itam dañ koy wor addunaag yi ci nekk di nuru ay neex neex yépp dañ koy wor bul fàtte ne juróom-benn fukki at yooyu ci ku amoon xéewalu yàlla may la ko ñaar fukki at yi nit ñi ak ndaw lañ koy jàppe bépp baay wala bépp yaay boo xam ne dem nga këram fekk fa doom ju amagul lu mat ñaar fukki at bët yam koy xool mooy ba léegi aajana ku ko sàmm aajana ku ko yar aajana ku ko dimbali kon gone lañ ko jàppe moom it yëg-yëg boobu lay am ñaari kon ñaar fukki at jàll na yoo xam ne jàppeegul boppam dara soo jàppee ni kuy am juróom benn fukki at la kon des na ñeent fukki at ñeent fukki at yooyu boo xooloon ni muy séddalikoo da ngay xaw a am njàqare ci sa mbir ñaata la ci nelaw boroom xam-xam yi gëstu ci fànn googu dañoo gis ne nit ki ànd ak wér gi yaramam dara dalu ko mu nekk ci jàmmam day nelaw bis bu nekk juróom-ñetti waxtu maanaam vingt-quatre heures yu ne maanaam ceeru ak dundam buñ ko defee ñetti xaaj benn bi da koy nelaw boo jëloon ñeent fukki at yi kon nga ne nelaw na ceer bi boo ko séddalee kon nelaw na fukki at ak ñeent yoo xam ne nit ki da koo nelaw ñeent fukki lu cay des kon ñaar at ak juróom benn ñaar fukki at ak juróom benn yooyu ak tawat yu bari yeeg wéradi yi doo xam la ca mujj moom mi nar a am juróom-benn fukki la ca mujj ci ban façon wér gi yaram la koy fekk kon njàqare war na mu des ñaar fukki atam yooyu ak juróom-benn ñaataa ciy dem noonu rek boo xooloon ñaata lay toog di ko lekk ñaata lay toog di ko naan ñaata lay toog di ko laamisoog aw nit ci yoo xam ne yépp boo ko seetloo la cay doon jaamu yàlla fiir lu jafe la la ca mën a doon lu gàtt ñi guddal ko lu bari la néew na ci nit ñi koo xam ne mën naa fexe ba añam ak reeram ak ndékkiyam da koy def ci une heure de temps képp néew na ci ñoom li ëpp ci ñoom boo calculé la muy añ faw mu mat trente minutes fa koy koy waajaleeg fa muy toogeeg waxtaan wa ci biir añ ba ba ba muy noppi faw mu mat fanweeri minutes reer ba dikk tollu noonu ndekki la dikk mat ñaar fukki minit boo jàppoon ne góorlu na ba ñett yooyu ci waxtu képp la koy def waxtu wi nga xam ne képp ñetti lekk yi muy ndekki li ak añ bi reer bi fexe na ba une de temps képp la loolu ma ne su matee at fukki fan ak juróom la kon fukki fan ak juróom a ngoog yoo xam ne ci lekk rek la ko paase nga xool nag ab naanam lu bari ci nit ñi waxuma naanum ndox sax waaye attaaya rek danañ ko toogal une de temps yoo xam ne ñu ngi koy att tàngal di waxtaan su àndut ak moy yàlla ci jëw ak yu ko nuru kooka ku baax la mu toog di déglu rek ñuy waxtaan ba une heure de temps jeex nga naan ñaari kaasi attaaya wala ñett kon yeneen une heure de temps ñëw na bu at mi matee muy fukki fan ak juróomati am nga fukki fan ak juróom yoo xam ne ci lekk la jëm fukki fan ak juróom yoo xam ne ci naan la jëm weer a ngoog wu dem ci dund gi te at mi kat fukki weer ñaar dong la soo ca boolee nag kuñ nattoo lu mel ne liñ nattoon ñu mel ne noonu nga xam ne li ngay wuyu ci téléphone ci bis boo ubbee sa téléphone te gàntuwoo benn woote du yées ñaar fukki woote te benn bu ci ne day jël juróomi minute kooka la muy yóbbu ci dund yàlla rekk moo xam ne muy toll te lu ëpp ci yooyu mën naa doon sax lu baax loo xam ne ak jaamu yàlla la ndax xëy na ci diine ak masa yu diine yu ci jëm la waaye ka koy joxe nam ko waroon a mën a joxe mën ko wax ci ñaari baat ak ñett dana toog di ko saraa ci loo ne dana mat juróomi minute wala juróom benn minute loolu boo noppi boo calculé ci at mi ay weer ay jóge ci sa dund yoo xam ne ci loolu la dem kon mbokki jullit yi njàqare yu mel nii ak xool dund gi nga xam ne bu la jamono di nax ak wér gi yaram gi da ngay defe ne lu yàgg ci kanam moo ci des ndax boo xoolee ci gannaaw day mel ni lu weesu lu yàgg lool la waaye boo xoolee it lan nga def ci lu weesu li ci gannaaw daanaka doo gis dara kon ci kanam toujours da ngay bëgg mu mel nu gën ni meloon ci gannaaw waaye fooy jaar ba loolu am te diggante bi lu gàtt la lu xat la loo xam ne day indi njàqare ma ne njàqare loolu moo tax mag ñu baax ñi jiitu woon muy asalafu saalix ñi joxoon waxtu lim yeyoo ñi joxoon waxtu lim yeyoo kon li jëm ci suñu waxtaanu tey dana jëm ci danañ ko jagleel asalafu saalex nan lañ jàppe woon waxtu wala lenn ci niñ ko jàppe woon anas ibnu malik radiallahu taala anhu dafa jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne su fekkoon ne kenn ci yéen dafa yor benn garabam garab guy meññ wala guy maye ker bëgg koo jëmbat maanaam bëgg koo ji comme ni ko ñenn ñuy waxe nee na bi mu demee ba agsi di bëgg a jëmbat garab gi rek yëg na ne yowmal a ngi taxaw nekkete nee na su fekkee am na fi diggante bu mu ko mën a jëmbate yi na continuer rek def li doon def na ko jëmbat boobu xadis daf lay won ne nit ki li feeg dara des na ci ak dundam na yëg ne dara des na ci yi ko war mu war koo def li feeg dara des na ci sa dund dara des na ci yi la war loolu nag itte woo waxtu foofu la mën a yem ku ñuy wax imaarat ibni xasiya daf ne yonent bi dégg naa omar ibn alxataab benn bis muy wax sama baay mu ne ko waaw sa tool bi ma gis fële lu tee nga ji ko lu tee nga jëmbat fa ay garab nee na sama baay ne ko ah man de mag laa moo xam ne jeexal naa ba noppi bu ëllëgee damay faatu maanaam lim jublu mooy su fi jëmbatee ay garab it buy meññ du ko fi fekk Omar ibnu Xataab ne ko nag danga ko jëmbat nag jógal Imaara nee na ma xool gis Omar ibnu Xataab ak sama baay ñu àndandoo nekk ci tool bu bokk di ko jëmbat ñoom ñaar kooku bind la boo xam ne Omar ibnu Xataab mi ngi ko jàngee ci xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nit ki ya muy def muy am njariñ du sart na ko fi fekk waaye li am solo na doon lu baax bu ko fa meññeet ma fekkul mu jariñoo ko it yool ba dana ko fekk fa mu nekk te fa mu nekk yool baa ko ëppal solo meññeet mi nga xam ne moom lay lekk loolu nag lu bari ci nit ñi duñ ko bàyyi xel wala fii dañuy wax naan njariñ loo fekke jàpp na rek lii boo bokkoon ci ñi koy baaxal itam ginnaaw du la fi fekk kon yow jëriñu woo ci waaye fekk na loolu njuumte bu rëy rëy rëy la ginnaaw sell na baax na te lu baax a tax nga def ko su la fi fekkut itam yool ba dana la fekk Abdullah ibnul Mubaarak imaam bu baax dañ ko laaj ne ko waaw yow ba kañ nga nar a bàyyi di sàkku xam-xam jekki ba doon mag ba àgg fii nga àgg ba noppi ñu gis ngay yor sa téere bi di jàngi lii ba kañ mu ne leen ba ba may dee rek ba ba may dee rek insha allah fasuma ko yéene ba maanaam diggante fi may dunde ak fi may génne àdduna fu ma naan noppi naa ci sàkku xam-xam xaju fi kon ñooñu ay nit lañ woon yoo xam ne yu bari lañ boole te Abdullah ibnu Mubarak mii bu ñu la waxoon histoire am li ci nekk lépp euh, danga naan liy warte mën a daje ci genn nit ndax bu dee ci wàllu liggéey ak fàggulu lew rawoon na ci ñim doon dundal ñim doon ñim nekkaloon bu fekkee ne wàllu xam-xam la demoon na ba xóot ci ba àgg foo xam ne li ko doon topp ci ndongo yi muy jàngal kenn xamul nu mu toll ànd ak loolu teewul fu mu yëgee ne am na ku ko raw mu jërub téereem dem ci moom jàngi ba tey abdullah ibnu mas'ud radiallahu taala anhu muy yi bu màgg nee na man day ki ma gën a bañ ci nit ñi mooy waa joo xam ne dama koo gis mu xëy nekkul ci dara lu koy jariñ ci àddunaam wala lu koy jariñ ci àllaaxiraam xëy rek toog ànd ak wér gi yaramam dalu ko waaye deful nekkul ci lu koy jariñ ci àddunaam nekkul ci lu koy jariñ ci àllaaxiraam nee na kooku laa gën a bañ ci nit ñi nee na it li ma gën a rëccu ci sama dund mooy bis boo xam ne xëy naa ba jant bi so nga xam ne booba bis wàññiku na ci sama dund ba noppi sama jaamu yàlla yokkuwu ci yàlla boobu bis laa jàpp ne mooy bi gën a perte moom laa gën a rëccu itam daana wax ne wattandiku leen nekk ay médd bu guddee maanaam mel ne ay néew wattu leen a nekk ay néew ci guddi waaye ngeen nekk ay gunóor yi njoolwaañ ci bëccëg bi ay gunóor Ibnu Uyayna mu ne xuturub boobu nga xam ne mooy gunóorub njoolwaañ nee na mooy koo xam ne su dikkee ci bii grand place toog fa une heure de jeexal foofa jóg jàll ca beneen jóg jàll ca beneen ba ba jant bi sox loolu mooy liggéeyam bu xëyee rek ci loolu la nekk gars yi fuñ daje tey ñu ne béréb sàngam mu dikk toog foofu bu ñooña tasee jóg dem ci seen i itte mu xalaat ña war a toog fi mu toll mu topp ñooña kooku mooy xuturub nee na mooy gunóor bi nee na wattu leen a nekk gunóorub bëccëg ba noppi nekk néewub guddi kon bu bëccëgee nekk leen ci lu leen amal njariñ ci seen àdduna ak la ca tàbbi ci ay jaamu yàlla waaye bu guddee itam lépp bu mu doon ay nelaw nañ ngeen ci bàyyi waxtu wax ne jaamu yàlla ko tax a jóg Abu Zar alxafaari ci alxifaari ci waaraate bu am solo bu jot boo xam ne def na ko daf ne fekk booba mu ngi ci ak aj dafa aj ba noppi taxaw ni ko Sufyaan Sawri nettalee ne eey yéen ajkat yi kaay leen déglu seen mbokk mu laaye leen biir nee nañu ñi geesu gis muy Abu Dar ñi gaaw daw wër ko mu ne leen waaw yéen de kenn ci yéen su bëggee tukki xanaa dana jël ab yóbbal boo xam ne mooy baaxal tukki ba ñu ne ko waaw waaw mu ne leen tukki bi jëm àllaaxira day mooy tukki bi gën a sori ci tukki yi nga xam ne soobu ngeen ko di ko dox kon jël leen luy baaxal seen tukki boobu ñu ne ko lu koy baaxal mu ne leen aj leen aj gu sell ndax yàlla fegal leen ci mbir yi gën a màgg ak njàqare yi gën a rëy ëllëg teg ca ne leen nangeen di woor ci bis yoo xam ne bis yu tàng la ndax mu mën leen a fegal fitna yi ëllëg na di julli ci guddi gi donte ñaari rakka ndax mu mën leen a wéttali ci biir bàmmeel ya te leen ne benn baat boo ko booy wax ci aw yiw wala baat boo xam ne danga nga noppi ci aw ay moo gën ci yow ci bis buy ñëw ci kanam boo xam ne bis bu màgg la bu jafe ay mbir la mu ne sarxeel ci sa alal la nga mën ndax nga mën a mucc ci metiti bis boobu mu ne àdduna pexeel ba mu doon sa àdduna doon ñaari jataay jataay boo xam ne danga fa nekk di fàggu lu lew loo mën a dunde ak sa njaboot ak jataay boo xam ne danga fa nekk di fàggu lu jëm ci àllaaxira kese mu ne jataay ñetteel ba nag dalay lor waaye du la jariñ wattu ko bul am beneen jataay fu ñu la fekk daal nekkal ci lu lay jëriñ fii ci àdduna wala mu lay jëriñ ci àllaaxira mu ne li ngay am na doon ñaari dërëm benn bi na dellu ci sa njaboot beneen bi fàggu ci lu jëm ëllëg mu ne dërëm ñetteel ba nag dalay lor waaye du la jëriñ wattu ko kooku mooy waaraateeg Abu Dhar al-Ghifari yi radiallahu taala anhum alxasanul basri muy imaam bu mag bokk ci ñi asalafu saalix yar dafa daan wax ne yow doomu aadama day ay fan rekk nga sa dund gi ay fan rekk la saa bu benn bis demee xamal ne sa lenn dem na am na lenn lu dem ci yow xëy nga ba ngoon jant bi sono xamal ne dogu tol noonu jóge na ci yow yow doomu aadama sa bëccëg bii sa gan la na ko teral nanga ko terale def lu baax soo ko defee gan gi dana fi jóge yóbbaaleel la yiw wu bare baree bari waaye ci boo ko tëralut def ci moom lu bon wala nga wax ko ci nee na dana la yóbbaaleel ngàññ yu bari de yoo xam ne des la koy fay bu ëllëgee mu ne àdduna ñetti fan rekk la démb nee dem na yóbbaale la mu yóbbaale kenn ku ne yaa xam sa démb lu mu la yóbbaaleel mu ne ëllëg ñëwagul te amaana sax du la fi fekk ëllëg muy suba bu jege bii ñëwagul te amaana du la fi fekk mu ne kon nag teye ngii moom nga am gaawal def ci li nga man teye ngii moom nga am gaawal def ci li nga man mbokki jullit yi suñ del see xool siirab ñii nga xam ne ñoo wax wax ju mel nii ak ñañu yar xool séeral dund ak ni barkeele ak li ñu def ci aw yiw jullit bi day am yëg yéeg ci ne nit ki su fonkee waxtoom teg ko fi mu ko war a teg mën naa def yu baree bari ñii buñ xoolee liñ bind képp ay imaam a ngi ci yoo xam ne liñ jot a taalif ñoom suñ la ko joxoon ne la tuxal ko bindaat ko feneen ci sa loxo sa dund mën naa jeex te du daj te ñoom tooguñu woon rek di tuxal maanaam ab xam-xam la boo xam ne gëstu la laaj dañ ko doon gëstu mu doon xam-xam ñu door koo bind te it yemuñu woon ci loolu dañ doon def yeneen di taalif yeneen ay téere booleeg di ubbee nit ñi ñëw ci ñoom booleeg di jaamu yàlla booleeg di liggéey lu jëm ci seeni kër kon yooyu yëpp dañ ko doon boole te teewut lu mel noonu di am waaye boo ci xoolee rek misaal ay benn benn ci ñoom danga xam niñ doon dunde Abdurahman ibnu abi Xaatim Arrazi dafa doonoon doom ju baax ju takkoog baayam baayam di boroom xam-xam bu mag su baayam daan wax mooy bind loolu rek moo doonoon liggéeyam léegi léeg itam baayam su soxlaa jàng ngóor si toog ci wetam yor téere bi di jàng muy déglu nee na su daan lekk damay toog fi moom di jàng suy dox maa ngi yorub téere ànd ak moom di jàng léeg-léeg nee na dem na ba dana dugg ca wana wa ne ca biir di faj aajo ma taxaw ci bitti yëkkati sama baat di jàng muy dégg ndax waxtoom bañ a sànku nee na suy dugg ci kër gi di jël dara maa ngiy jàng kon fu mu mas a toll fu nekk mu ngi ci dara dara sànkuwul ci waxtoom waaye meññeet ma mooy lan lim fi bàyyi ci ay téere yiñ ci jot a gis ak yi nga xam ne boroom xam-xam yi ñoo nu ko nettali lu yéeme la téere bi ñuy wax aljarx wa taadil ci téere yi gën a rëy ci yi fi nekk tey ci la bokk ànd ak ni juróom-ñeenti xaaj yu mag a mag la téereem bi ñuy wax téere tafsir nga xam tafsirul quran la wax nañ ne téeméeri xaaj la téereem bi nga xam ne da koo taalif ci xadis wax nañ ne junni xaaj la ci kenn nit kon loolu waxtu moo ko mën fonk waxtu moo mën loolu suñ jëloon ci lenn ci xam borom xam-xam yi nga xam ne dunduñu woon ci jamono yu jëkk yooyu nga xam ne ñetti siècle yi la ndax nit ki mën na ne ah ñooñu kat ñoom ñooy yonent yaag saxaaba yaag ña nga xam ne ñoo sës ci ñoom rek ñooñu xëy na la leen yàlla may mayu ko keneen ñu ne oxokay oh, ba tey ci ñi ñëw seen gannaaw dund nangami téeméeri at ñi door a ñëw ñoom it joxe nañ ay misaal ci loolu suñ jëloon ku mel ne al imaamu nawawi rahimahullah nga xam ne ñeent fukki at képp la dund faatu ñeent fukki at la wi dund faatu lenn ci boroom xam-xam yi xool na téere yi Nawawi taalif tam nekk fi tey ñu ne buñ ko calculé xool ko ci ak dundam séddale page yim fi bàyyi ak fan yim dund dañuy gis ne bis bu ne doon na bind kon ñaar fukki page ci lim taalif bis bu ne ñaar fukki page te bul fàtte nit kii da koo séddale ci dundam gépp te judduwul rek di bind war nañ cee dindi lu mat fukki at ak nàngam door koo séddalewaat su ko defee boobaa danañ gis ne li muy bind bis bu nekk ëpp na fanweeri xët ci bis te doonul ku toog di sotti waaye ab xam-xam lay bind boo xam ne taalif la laaj dafa laaj yu baree baree bari ndax mu mën a doon xam-xam boo xam ne boroom xam-xam yi danañ ko nangu kon ana nelaw ya ana lekk ga ana àq ya dox digganteem ak ay soxnaam ana jaamu yàlla ya ana leneen ana leneen ànd ak ne yooyu yépp leen lu ci ne doon nañ ko jox àqam ba mat sëkk la xew mooy ñii dañoo xam valeur bi nga xam ne moom la dund gi am ñu xër ci mu jaral leen lu bari nag lu bari mu jaral leen ko tax seen dund gépp ñu forcé ko fexe ba def ci loo xam ne euh, dana mën a jëriñ ëllëg mën a jëriñ itam ñi nga xam ne ñooy xeetu lislaam kooku benn misaal rek la waaye jàmbaari lislaam yi nga xam ne bàyyi nañ lu toll noonu te mel ni ku ko doon lim loolu rek dana doy xutba te doo àggal ginnaaw xam nañ kiima waxtu muy valeur bi mu am ñoom dañoo jëloon seen jubluwaay mu nekk lenn muy fas yéene am ngërëmal suñu borom tabaraka wa ëllëg loolu nag ginnaaw xas na doon jubluwaayu nit ki yeneen yi ci des yëpp ay moyens lay doon yu koy yóbbu ci loolu moo tax jamono ya muy def moyen boobu daanaka sax du ko yëg ndax mi ngi visé rek lenn loo xam ne moom lay xool mooy ngërëmul borom tabaraka wa taala fan la koy jaar kon daal ñooñu amoon nañu itte lool ci seen waxtu joxoon nañ ko itam ak xam ba tax na lu rëy ci ñoom la comme ni ko ibnul Qayyim di waxee mu ne waxtu wu sànku nee na moo moo yées dee maanaam moo yées dee nit ki dee moo tane waxtoom sànku ndax nee na sa waxtu bu sànkoo kooku dox na sa diggante daf lay dog ci sa digganteeg sa boroom ak sa digganteeg ëllëg alaxira maanaam sa waxtu bu sànkoo yàqal na la sa yàlla yàqal na la itam sa ëllëg waaye mu ne dee moom bu ñëwee yàqal na rek sa àdduna sa àdduna rek la la yàqal waaye amaana boo dee sax foofu moo gën ci yow ndax ci këri xéewal yi nga jëm yàlla na ko borom bi tabaraka wa taala defal noonu ñëpp Asari ibnul Mughallis mi ngi wax ne su fekkee ne soo ñàkkee dara ci say am-am dangay am njàqare tiit ndax ay dërëm yu dem nee na kon boo amee fan yu dem ne kon de da war a jooy waroo am rek njàqare soo amee dërëm yu dem nga di ci am njàqare nee na kon boo amee fan yu dem ci sa dund nga xam ne dafa sànku nee na kon kooku jooy nga war a dëkke ma ne nit ñi su fekkoon ne doon nañ jooy seen fan yi yii sànku kon danañ jooy jooy yoo xam yu baree bare baree bari la te ci kanam danañ def lenn ci ay wax ci yi nga xam ne mooy gën di faral di sànq waxtu nit ñi ak yan pexe lañ war a mën a def ba mën a dindi yooy yi nga xam ne dañuy sànq waxtu di ñaan sun borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq te boole ñu ko allahuma inna nasaluka ilman nafia wa rizqan wasian xalalan tayiban mubarakan fih allahuma inna nasaluka an tubarika fi amalina wa an tajcala awqaatana barakatan kullaha laa yadiicu minha shayun fi qiila wa qaal wa kasrati su'aali wa idaacati almaal wa salli allahuma wa sallim ala nabiyika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmaciin